économie sociale solidaire di Victor Ndeye ak ci kanamu maire ville bu Ndakaaru di Barthélémy Dias njiitu réew mi di président Macky Sall li mu bëgg maanaam mooy maire yi ak ville yi ak département yi état bu Sénégal ñu joxante loxo ndax nee nañu bu ñu bëggee liggéey bi lépp mucc ayib maanaam mënuñoo ñàkk joxante loxo ba tey ci lu jëm ci wàllum forum économie sociale solidaire bi nga xam ne ñoo ngi koy amal ci Ndakaaru Ndiaye jël Diop ministre bi ñu dénk wàllum microfinance ak wàllum économie sociale solidaire wax ne li mu bëgg jamono ji nag maanaam ci fukk ak ñeenti régions yi nekk ci Sénégal ñu daa dafay créer créer ay incubateur yoo xam ne dina jëm ci wàllum économie sociale solidaire wàllum financement entreprise yi ci wàllu woowee daanay wax tamit ne li ñu bëgg maanaam daal di installé ci 46 départements yi loo xam ne maanaam danañu mën a jege lool askan wi ci lu ñeel wàllum économie sociale solidaire ba tey ci biir journal bi de Le Quotidien yor yor xëy di ñu xibaar naan ñu lancement forum économie solidaire bi nga xam ne ñoo ngi ko doon amal njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay jaajëfal baax a na ko tu as bien travaillé wax sa baay Sambol Dias ne ko Barthélémy liggéey na ba tey ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall ci kàddu yi nga xam ne ni ki démb daan na ko yëkkati ko Barthélémy Dias se dire à Jean-Paul a bien travaillé loolee la Macky Sall wax ni ki démb Barthélémy Dias Macky Sall mi est-ce que roubé wu la yéene kaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu en tout amba de Sall Macky Sall mi nga xam ne gis nañ ko ni ki démb moom ak Barthélémy benn tànk wuti Macky Sall bi nee na démb la gis nga lëngoo yi la toppante yi mën la accolade yi journal bi da la témoigné nee na yokk neex jeek mën la tegante mbagga clin d'œil yi gis nañ ko niki démb diggante Khalifa Ababacar Sall ak Barthélémy Dias ak njiitu di président Macky Sall yéen kaay gi ko di jaay nee na di président Macky Sall niki démb daan nay wax Barthélémy na ko Bart yaa ngi doxal Ababacar Sall ak Karim Wade kan moo kan moo ciy gloria maanaam Khalifa Sall ak Karim Wade kan moo ciy gloria ndax nag président Macky Sall ci diwaanu Thiès dafa waxoon ne moom ak Idrissa Seck ñooy mburu ak soow waaye nag léegi tey gloria daal di ñëw mën na la gloria boobee journal bi ne mooy Khalifa Sall wala mooy Karim Wade ab laaj la journal bi di Direct News nee na en tout cas li am ba des daal ci réseaux sociaux yi mën na la gis nga commentaire yi gars yi Khalifa Ababacar Sall lañ ciblé mooy gloria yéen kay gi nee na dialogue politique bi nag mën naa tax Karim Wade ak Macky Sall daal di jege yantoo loola waaye Karim moom mii nga xam ne dafa lànkoon ba tëdd sa naaj wane bëggul ku ko amnistie ndax Karim Wade dafa génn ca loole yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Déthié Fall moom nag nee na dialogue politique bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko mën na la bu ko sa na kenn na ci génne xelam te ñi nga xamante ni ñoom lañ tëj ci kaso bi jamono ji ñu daal leen di génne libéré journalistes yi libéré ñi nga xam ne ay détenus politiques la présidentielle 2024 loolee président Macky Sall koy dakkal waaye nag wut koo xamante ni ab personnalité bu neutre bu tëddee njaaxaanaay ngir nag organiser li xam ne mooy élection présidentielle 2024 bi di Rewmi Quotidien nee na journaliste Mamadou Ibra Kane nee na jamono ji nag bokk na ci F24 waaye nag àndul benn yoon ci li xam ne mooy dialogue bi président Macky Sall woote moom Mamadou Ibra Kane nee na mbirum ñetteelu candidature bu ko kenn tudd ci réew mi maanaam Walfadjri xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall Khalifa Ababacar Sall jamono ji nag dafa mel ni daal lu jëm ci wàllum isolé Ousmane Sonko ber Ousmane Sonko mën na la gis nga mbir maa ngi leer li am ba de Sall Ousmane Sonko mën na la gis nga war a tudd sukkandiku di bàyyi xel di compter ci Khalifa Ababacar Sall ak ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias li nga xam ne ni ki démb daat nañu koy gis yéen a kaay gi de ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum dialogue bi jamono ji daat nay commencé ni ki démb ca Grand Théâtre la dialogue bi commencé na yéen a kaay gi de enquête xëy duñu xibaar naan ñu mën na la gis nga gars yi kenn ku nekk ak sa agenda Macky Sall am na agenda ma ngi koy doxal Ousmane Sonko am na agenda ma ngi koy doxal Karim Wade am na agenda ma ngi koy doxal Khalifa Ababacar Sall am na agenda ma ngi koy doxal nee na c'est le temps des calculs mën na la gis nga gars yi jamono ji gars yi ñoo ngi calculer yéen kaay gi nee na lu jëm ci wàllum dialogue bi nag mën naa andi réero ci biir coalition Yewwi Askan Wi rawatina diggante kalifa Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko yéen kaay gi de la point ci xën mu njëkk mu ñu fekk fa Maodo Malick Mbaye mouvance présidentielle moom nag ma ngi avertir Aminata Touré ak Ousmane Sonko Maodo Malick Mbaye nee na politiquement Ousmane Sonko ak Aminata Touré dañoo war a ñëw ci dialogue bi ndax nag bu dee ñëwuñu ci dialogue bi maanaam bu dee dañu ko boycotté loolee xaru la ci lu jëm ci wàllum politique te li nga xam ne nag moo baax ci ñoom mooy ñu ñëw participer ci dialogue bi ndax dialogue bi lu baax la moom Maodo Malick Mbaye ci biir journal bi nee na nag amul yenn samba boo yoo xam ne mën na ñoo andi ak pëccaxoo ci réew mi loolee dafa war a leer naññe yéen i kaay gi de la tur bi ne xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall su dee nag dina am ñenn ñoo xam ne ñoom lay dialogueel mooy les hommes du système ñi nga xam ne ñoo bokk ci système bi ñooñee daal jamono ji maanaam ñoo nangoo dem di wuy ji ki xam ne nag moom mooy président Macky Sall journal na Khalifa Ababacar Sall ni ki démb daan nay jébbalu ci président Macky Sall journal na Barthélémy Dias ni ki démb daan nay jébbalu ci président Macky Sall journal bi nee na Habib Sy démb daan nay jébbalu ci kanamu président Macky Sall Bougane Gueye dana ci biir journal bi nee na 2024 Sénégal dina tàqaliko ak ñi a ay wurujkat lañ ay sàcc lañ ay voleur yi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi atum 2024 Sénégal dina tàqaliko ak ñooma yéene kaay gii de Les Échos nee na Khalifa Ababacar Sall ak Barthélémy Dias ko ca journal bi nee ñi nga xam ne ñooy waa DIC division des investigations criminelles daat nañu nag déglu directeur général bu société commerciale du groupe ISA directeur ba di Ibrahima Issa journal bi nee moom directeur boobee nag maanaam ci lu jëm ci xaalisu Covid 19 bi maanaam joxoon nañ ko lu toll ci soixante-treize ak lu fegg ba pare moom nangu na ne jox nañ ko xaalis boobee te amul benn service boo xam ne def na ko ci lu jëm ci wàllu woowee waaye nag moom mii nga xam ne mooy Ibrahima Issa daat nay nangoo remboursé mën na la gis nga nangu naa nag def li nga xam ne mooy goxi nangu naa goxi soixante-treize millions yooyee ak yu fegg yéene ka gi na na Tanstandia déglu nañu ko journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa dikk maanaam ñi nga xam ne am nañu nag ci xaalisu Covid bi jox nañ leen si te mu jugee ci ministère de la culture ak wàllum communication ak géologie ñooñee ñëpp déglu nañu leen yéen kaay gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu Banda Diop mi nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon maire bu Padoa moom nag waa DIC division des investigations criminelles déglu nañu ko ci lu jëm ci wàllum escroquerie foncière yéen kaay gi di sunu làmb xëy ci écurie Fass Ndakaaru ak li nga xam ne jamono ji moo leen di xaar ni ay combat ndax pression bu mag jamono ji moo am ci seen ñetti mbër yi di Gris Bordeaux di Força ak Serigne Ndiaye 2 ndax Gris Bordeaux mbërum Fass mi dafa war a bëri ak Ama Baldé Força ak